waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, ñoo ngi nuyu mboolem jullit bu féete ci kaw suuf si waaye di xaasal waa Afrique di xaasal waa Sénégal di xaasal waa Thiès waaye ñu ngi nuyu tamit bépp téléspectateur bi nga xam ne yaa ngi seetaan Kassas TV ci émission bi di keppaaru na bi waaye ñu ngi ci ànd ak suñu sëriñ bi di Oustaz Maysa di ko ñaanal di ñaanal équipe bi ma àndal yëpp yal yàlla defal leen fatxu defal leen tawfiq yëkkati kër gi ak ñi ciy liggéeyee yëpp eh, ñoo ngi nuyu fi nga jaar yëpp jaar nañ fa di nuyu waaye dinañ tudd Cheikh Muniru eh, moom buñ ko tuddee rek tudd nañ mbooleem xulafaaw yi waaye am koo xamante ne xàq la ci ñun ñu tudd ko mooy suñu sëriñ di Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Maahi nga xamante ñoo ngi koy dàkkantelee xadimul ummati liggéeyal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy nuyu di nuyu njabootu Cheikh Ibrahim bi di nuyu tamit al imaamul akbar Mawlaa Cheikh Ahmad tijani ibn Cheikh Ali Cissé ñoo ngi nuyu suñu cheikh murabbi Cheikh Rachid Li depuis Kanel ca Fuuta di muqaddamu Ceerno Abdallahi Jaabu Boggee ñu ngi koy nuyu di nuyu xadara bi daayiratu Chamsil Maghribi yëpp ñoo lay delloo nuyoo di la ñaanal waaye di sàkku nga ñaanal itam mm-hmm. ñaan yàlla li nga xamante ni moo ñu fi dajale mm-hmm. te yàlla mottali ko ci gën jaa rafet ci anam bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi jërëjëf. yal na yàlla fay la. amiin yaa rabbal aalamiin. yal na yàlla taxaw la. amiin yal na yàlla yeggale aw yoon. amiin yaa rabbal aalamiin. yal na yàlla muccal ci baax. amiin amiin amiin sallallahu alayhi wa sallam. dafay nga xam ne mooy dox suñu diggante. yal na yàlla sàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. barke Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin radiyallahu amiin radiyallahu. lii dañoo bëggoon rek ñu dugg uh, mubasharatan ci waxtaan bi. Mm-hmm. ñu tànnoon benn xasida boo xam ne nii mm-hmm. tabibi yi qaribun lañ koy wax mhm. waaye lu juuti xasida bu mhm. dañu dañu bëggoon a laaj ashaa'ir mhm. ki nga xamé ni mom mo way xassida bi lan la lan la bëgg laaj ma sha Allah bëgg dugg ma sha Allah taala ci xassida bi euh ah, ma sha Allah laaj nañ jëm jo xamanteni eh, dañuy doy rek ci taarif bi nga xamanteni ñi jund ak mom ñu dund ak mom def nañ ko donte ne nak nit la koo xamante ni njëkk feeñam wala yàlla yi daan nañ ko junj ay junj yu leer yoo xamante ni ba mu fësee mhm. xam nañ kan la mhm. ku mel ni euh, Cheikh Ousmane Daan Fodio mhm. tudd na ko ci turam ba tudd na mu tudd buñ demee ci Jawaahiral ni am na ay melo yu bëri yoo xamante ni buñ ko delloo ci Cheikh Ibrahima dañuy gis mu mot ba ci Imam Ghazali ak yeneen yoo xamante ne ay ishaaraat la yoo xamante ni du tudd Cheikh Ibrahim waaye saaxibul fayda bi lay tudd fi aaxiri zaman ñu gis ne moom la yàlla tegtal ci fayda boobu noonu waaye buñ ko doon buñ doon wax borom xasida bi kan la doy na rek ñu ne moom mooy le premier noir étranger bu njëkk a jiite ci jaamiatul azhar parce que jaamiatul azhar foofu moom mooy capitalu xam-xam waaye étranger même bu dee sax doo doo nit ku ñuul étranger bi fa njëkk a jiite Cheikh Ibrahima la waxuma la ak mu nekk nit ku ñuul moo tax euh, ba mu fa defee xutba ba pare mm-hmm. dafa am euh, ben borom xam-xam bu ñuy wax Cheikh Mouhamed Ghazali bokkut ak imaamul Ghazali bu mag kay Abu Hamid la tudd kii Mouhamed la tudd mm-hmm. dafa bokk ci shuyuuxul Azhar mm-hmm. dafa wax benn wax boo xamante ne damay wax ne Sénégal bu fekkoon ne mbiram par parloo nekk fi dañuy jël bind bi rek bindee ko or def ko entrée Sénégal mhm. parce que dafa ne innana mutmainnuuna ala ibqaai l islam ma daama amthaalu dayfina al mhm. Ibrahim mhm. mu ne ñun de am nañ njortu ci desek islam fii ku mel ni suñu gan bii nii moo ngi fi teew baatu cheikh al islam tamit foofu la ko a déggee ki ñuy wax Mouhamad Chaltut moo ko ko ginnaaw ba bàyyi defee déclaration am def fa xutbaam bu rëy boobu noonu mu tuddee ko haada huwa cheikhul islam kii mooy sëriñul islam bi ak yeneen misaal yoo xamante ne bu ñu ci tariqa bi amaana Mouhamad Ghazali boobu ak Chaltut bokkuñu si tariqa Tijani. waaye ku mel ni Cheikh Ahmed Soukay rek. nga xamante ne fii ginnaaw Cheikh Umarul Fouti ak ñi maas ak moom jëm kaw. keneen ku fi munti nek mooy sa sëriñ. ndax moom moo ijaazaal maa Abdullahi Niass moom moo ijaazaal Seydou El Hadj Malick ci ijaaza itlaq waaye moom ba muy ba muy dafa dafa def ay misaal yu bëri ci Cheikh Ibrahim yoo xamante ne da nga yéemu ku bëgg am référence yi da ngay dem ci benn téere bu ñuy wax muxtaaratu rasail allati daarat bayna al alaamatayn al aarifayni ki ko bind moo ngi tudd Cheikh Raadi Gannoun taalibe la sët la tamit ci Ahmad Sukayraj mu jël lettre yi nga xamante ne Ahmad Sukayraj daf ko doon échanger ak Baye Ahmad Sukayra di misaal bàyyi ci misaal yu bëri waaye ñaar rek laa siy jël benn wax na ko ne bu fekkoon ne tariqa tijaani bi jaaro la mu ne yow yaay per bi koy rafetal yow Cheikh Ibrahim beneen bi tamit dafa ànd ak bàyyi di gunge bàyyi ci gaar ba biir Maroc parce que bàyyi ba muy ñëw moom ba muy fekki Cheikh Ahmad Sukayra ñi ñu ngi wax Tanja la ko fekk ñi di wax benen dëkk waaye ba mu koy gunge ba si kanam talibé yi dar ko dafa ne zatun min an-nuuri tajassadat quluha anni mu ne kii di jëmm la boo xamante ni leer la bu formé wu jëmm wax leen maa maanaam bind leen maa ko wax yooyu rek pour man doy na ndax li cheikhani waxoon ci moom parce que cheikhani dafa dafa waxoon ci bay mu ni ليس يدري مقامه غيره بل منه حتى عن المقام كتابه من كان خم المقام مم باي كدود مم من باي المم تبقم صح دفع ديري بقم أم تبنين تالي ببو حمان تندفن ونقول ما استطعت ودع عجزا عن الباقي لا يعرف الشيخ حقا غير حلاقي من وخلت مم لولا نيخ نقباي اللي اسنق اللوطو من دخ كان خم الشيخ إبراهيم كدود يعلم بساك لولو باي ناس رضي الله عنه مونجي نونو نتكو حمان تني bamu waré jang jang na mm-hmm. waaye juddo fi mu judo a juddoo ngi juddo ci digënté mamastu jank ak mala jabdallah mm-hmm. juddo bir salum dekk buñu wax tay baña sen ci 1900 mm-hmm. ci la gane aduna and ak bayam nek ak bayam ba bayam gën aduna am 1922 mok seydou hajj malik ñoo gën nañu ben at waaye mom ci baye mom ci boppam waxal na ci bopam mom baye mu ne kenn ben bind lulul sama papa te ba mu génnee àdduna jëlaatuma dars ci keneen mhm. kon koo xamante ne jàng na ci ay loxo baayam ba yàlla may ko fatxu bi mu ko may moo ngi woote faydoom bi nga xam ne moom moo jur yaatoom bi moom moo jur law gi yëpp mhm. mu ko woote en 1929 faydu bi nga xamante ne Cheikhu Tidiane Chérif radiyallahu mhm. moom moo ñu ko junjoon parce que munoo waxtaanee bàyyi te doo wax faydu munoo waxtaanee faydu te doo wax bàyyi parce que kii mooy lii mooy mission mission bi kii moo koy doxal loolu rek la kon ci tënk kii wax ni lott na lool pour wax ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mhm. waaye nañ xam rek ne doomu Sénégal la mhm. doomu Saalum la mhm. fierté tariqa bi la fierté tamit islam la doy na rek koo xamante ne taxaw na publiquement ne laqantu alafan walan tuadda kalimata tawxid faatul hadda mu ne man waxloo naa ay junney junney nit baatu laa ilaha illa allah lii rek li ma li ma jiitu woon yëpp bu ma neexoon ma noppi ko lii rek doy na présentation nit la koo xamante ni tuubal na ci ay nit pour ñu dugg ci diine bii nga xam ne moom mooy diineeg mucc bi mooy diineeg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp ay millions yi nit parce que bàyyi ba muy génn àdduna rek fekk moom ci boppam bàyyi na lu ëpp vingt millions taalibe loolu moom mooy moom li mu bàyyi ginnaawam nag fa lillahi alhamdu euh, mbir mi gën yaatu xam naa ñu gàttañ lu rek ah, waaw parce que waxtu moom day gën a yaatu dëgg yàlla hmm. euh, ubbi ubbi bi am na solo loolu. saa si yàlla taxawul ak. amiin yaa rab sàmm la amiin yaa rab macha allah taala bu ñu ñëwaatee ci beneen question rek. sababul xasida. loolu bëgg laaj. macha allah taala xasida bii nga xam ne ni moom la ñu fas yéene waxtaanee. sabab bi. lan mooy sababu xasida bi.